Pamatar yow Pamatar yaay doomeram dëgg dëgg dëgg et tu oses ak sa kanam bu ñaaf ndeyam gi nga ne da ngay def yow ay ay TikTok naan ay koo xam ne na quinze nit te nañ ko quinze nit tëddee nañ ko waa léegi d'accord ay saar bo quinze nit tëddee su ko neexee consentante na coow jubul affaire am la vie privée la comme yow rek ni nga demee sa moroomu góor yi di la juutal nga doon góor jigéen yow loolu sa affaire la yaa ngi yàlla yéen a koy lijjanti mais bawul fàtte ne Adji Sarr mi nga ne moom moo wax ni quinze nit ñoo ko doon tëddee mais Adji Sarr nee na Ousmane Sonko xuur yi dafa peer xuur yi benn xuur bi dafa peer Adji Sarr nee na Ousmane Sonko buy daan danaan ko saagaal sama ndey sama yaay nii la tudd doo génn TikTok nga def nday loolu di ngeen liggéey ba dee li di lekk du barke parce que. sa sa salaire mo la doyul mo tax ngay jema jappel wa waa pour ñu lay cotiser pour nga mëna dundu du premier peut être au 30 au delà de ça sa salaire bo si yame 5 jours nga ci dundu mu ñap nday ma jeex lolo leen metti frustré bobu ngeen fogg ni li leen dal Macky Sall leen ko tek wala pouvoir bi wala Ousmane Sonko mo leen ci genn fofu nga ñappee sa nday joom ci si góor gu ne leung wara mëna ñafé life am tok fam di di di di di yàq xale koo sa raq la raq yin bu len sonn Ousmane Sonko question du jour moko dina dina dina dugg si djel bi yin fexe len rek ba lu ngén di def na ci yoon bis bu ngén wàqee waccé yoon djel bi ngén djem ndayam ni mom ko yow Pamata djallo yow ya ñak jom gor jigen bu bon bi nga don gis na la nga né ngay tiktok nan ko person. personnes yow da nga xam sa yaay ñaata gor ko tiddé mais ci sa papa la tam mais Adji Sarr nag dafa ne Sonko moom moo ko tëddee te neexu ko bu koy bu bu ko neexee trente six personnes tëddee ko yow sa yaay laaj ko ñaata personne ko tëddee ba mu gis sa papa nopp ko xat nga sa ndey trop yaakaar Ousmane Sonko doomu xaraam bi nga doon di liggéey ci rien imbécile xeesalkat bu bon bi nga doon sa tuun bi di seen. yow Pape Magal Diallo ku a yow bu ñu yéegoon sa sœur duñ ko duñ ko duñ yow ku ubbi sa job bu nday ga yéen amuleen benn respect jigéen pare que góor jigéen bu toog sa lëfal nday yow nañ doomaraam yow yaay imbécile may wax ngay xëy di stati Pape Matar Diallo yow yaay doomaraam yow yaay imbécile wax ngay xëy fifteen quinze nit tëdd nañ ko jaar nañ ko fi yooyu yow yaay imbécile Pa Matar yaa katt sa ndey yow doomaraam nga ah yow amoo rakk bu jigéen wala yaay yow wala sa yaay góor la du jigéen amoo jabar amoo dara ci jigéen doomaraam ji na bàyyi doomu jàmbur bi ah doomaraam nga rek yow yaay doomu xaraam kenn xamul looy nuróol ak sa kanam ku la gis sax gañ lay bëgg yu noo def ndax sa kanam gu ñaaw imbécile bi na nga toj sa cottu ndey bàyyi doomu jàmbur ji góor jigéen bu bon bi doomi xaraam nga rekk sa tartam ndey waaye yow Pape Matar